mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ne mooy wasaare làmb euh, la ma leen waxoon rek sànq ci samay commencement émission moom laa leen di waxaat muy wasaare dañu dugg ci cent mille abone avant ñuy dugg ci cent mille abone bi ñuy toll ci quatre mille wala trois mille abone bokk naa ci njëkk a jëli émission bi ma njëkk a def wasaare làmb kii laa ci àndaloon mu nekk xale. xale bu am jom boo xamante ne mu ngi lansaar te bu jugee tund boobu yëpp dañuy jóg ànd ak moom jàmm gën si kaam mbaaw lansaar gi caara yi fépp dañuy jóg ànd ak moom muy abu Ndiassé mu nekk xale boo xamante ne vraiment am na jom bën na bëre te làmb am nañ ci moom yaakaar tuus bi nga xamante ne fi mu toll ni bokk na ci sénégalais yi képp ku ko tuus ci mbaru làmb war nañ ko jox droit d'auteur tuusam na dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi abu maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. Baye Djily maa ngi lay fay. Hmm. ginnaaw ma sante yàlla. julli si yeneen bi di sant samay ñaari waajur. Hmm. santaat samay ñaari waajur. Hmm. santaat sama yaay bu baax. surtout moom. bu fa jógee damay sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke alxuraan. mënuma sant te mënuma ko mënuma wax si moom quoi. ndax lépp tamit moom la. dëgg la waaw Baye Sidi di ko sant di sant képp ku di sant képp ku may jàppale tamit. Mm. di sant ñëpp daal. waaw di bëgg ñëpp di bëgg àddina képp koo xam ne yaa ngi may supporté maa ngi lay bëgg. Mm. di bëgg fi ma jógee muy Lamsaar. Mm. jàmm kan teewoon jag saaw caaree géej posu caaree Kër Masaar. xam Mbaaw Sam Sam. xam nga maa ngi bëgg daal waxtu te gars dañuy kaas daal. waaw maa ngi bëgg ñëpp wax dëgg yàlla. waaw. ci ban année nga dugg ci ci ci arène bi. arène naa sax ban année laa si dugg. jàppatoo billaahi jàpp moo. ki nga njëkk a bëreel. maa ngi njëkk a bëree Saamu Kaani. Saamu Kaani. waaw non astafurlaa waaw Maalaw Kajoor. Maalaw Kajoor. waaw kan moo bëroon grand combat bi. Laasana ak Tampon Ndaw. Laasana Tampon Ndaw. ndaw si yàlla si Tampon Ndaw. ndeysaan mu nekk combat boo xamante ni sa combat arène. Mhm. nga war a dugg si gox bi nga dëkk. am ay champion yoo xamante ne ñu ngi fa. Mhm. yaakaar naa bi ngay dugg ci làmb fa nga fekk ay Fëgala. Mhm. Nees Tidiane fay ñu ngi ci benn offre yi boo xamante ne am na solo lool. Mhm. bi ngay dugg lan moo nekkoon sa objectif ci làmb. waaye bi may laa gis ñuy bëre hmm. sama koñ tamit façon champion bu nekk jël ma hmm. parce que yàgg naa ni muy mbër boo fa ci làmb ji muy ñu jaar nañ fa. Hmm. muy Bombardier muy jaar na fa Tyson jaar na fa Eumeu Sène jaar na fa. baa Balla Gaye jaar na fa ñu fa jaar benn mu daal mu ne ma ne juum champion boo xalaat si làmb ji jaar na ma bëgg Moussa Morgan. Mhm. te ñun fa lañ daan foogee ñun ñoo doon bëre timis bi nii si kanam ñu daaxu ñu génn ñibbi. Mhm. guddi gi ñu dem ñaan suñu yaay xaalis wala fee dañoo toog seetaan. Mhm. waaw. nga bëre ñaata combat ren. ren bëri naa six combat li toll di bëri bëri. daa sa sens ci làmb bëriwul de. non bëriwul bëri na bëriwul sax laa mën a wax. Hmm, ñaata victoire nga am. trois victoire laa am. trois défaite ak tur bi nga am. waaw ba léegi boo déplacé woon mbooloo mu bari dañ lay topp. Hmm. kon ñooñu lan lañ la toppee. waaw ñooñu dañu yàgg ànd rek. ñii seetaan nañ ma mbapat ñii xam nga ànd nañ dund xam nga xam nañ li mu mën tamit. Hmm. xëy na xam nga nee naa sama combat bi passé ñaax mais maa ngi sant bu baax. parce que ñun ki ñu àndaloon xam nañ ko quoi. ñan ak ñan nga daan ba mu doon limal trois personnes. mbapat ay tournois laa doon bëri tournois. mbapat waaw bëri naa fi pour ay tournois. xam hmm. nga bëri naa naa ne Lamsaar wala jàmm gën tournoi bu ñu fa njëkk suñu numéro moom moo ko hmm. waaw. arène ñaata ñan trois personnes ñoo la fa daan. arène Saamu Ka ma Sofala Saamu maa ko daan Kajoor waaw ak Zaal Bawol ak Pam Ndoye moom mujj bëreel nii. Pam Ndoye waaw ah, Pam ñoom kana la ci daan ñoom trop ñoom ñooñu. Pam Ndoye. ak kan. ak kii Zal ak kan. ak Malaw Kajol. moo la daan. waaw ah ñett defet yooyu nga am. ci waaw boo gisee loolu xale yi ku jóg. Mm-hmm. ne Abou Ndiassé laa bëgg a bëreel. Mm-hmm. Abou Ndiassé lan la lay def. waaw damay sant parce ay lu mu licence xaw ma ñaata licence. Mm. ku jóg nañ ma jox de loolu sant la. surtout yaa gën a nooy ci booy. non man non. la <laughs> bu jug ma nooy. moom newul ci man. xëy na tamit làmb day toll foo xam ni. mbër mu bëgg tamit coow lu topp wala dara. Hmm. waxuma la ñu mais yeneen mbër yu dul moom dañuy taxaw di moom rek. mais man bàyyi fi kenn man aw ma xaritu mbër. Hmm. du ma farakante mbër. ba ci samay xarit moom sax xam nañ loolu si man. man nga leen gis fu nekk ñu nga fa gis parce que awma temps boobu mais Abo actuellement ci làmb mm. euh, ni ñu ni ñu yaakaare woon ci yow mm-hmm. jékki-jékki ñu ne Abo bëri na combat bi capital yu bëri danga ko ñàkk mm-hmm. tey boo toogee ci benn moment fan nga war a mën a jëm ci làmb ñan nga jàpp ne actuellement Abo war na leen mën a jël mm-hmm. bëreeg ñoom parce que xam naa ne nag dem nga nekk fi di laaj ñoo xam ne xam nga du ñu say morom dëgg la mënoo bëreeg jóge ci Pape Ndoye mu daan la ngay laaj ku gën a supérieur Pape Ndoye da ngay xool ku gën a suufe waaw loolu am na. Ah. mais xam nga làmb léegi dafa xaw a garaaw quoi. Hmm. làmb lu ko garaaw. parce que si nekk kenn waxu ko. lan la dañ siy teg dóor mu daan. non dóor am na si waxuma làmb dafa nekk dafa commencé am kalan. Hmm. waaw làmb dafa am kalan. ci biir làmb. dafa am hmm. mais man dama maîtriser loolu yëpp toog si. clan bi lan la. clan bi mooy promoteur yi léegi ku si nekk daam seen mbër da leen a génne ñeneen ñi da leen jéem a génne yow sa intérêt mbër rek ngay mais mbër xam nga nag promoteur mbër mi mobilisé. Mhm. mooy xaritam. waaw loolu am mobilisé wul amul ci moom soxla. waaw bokkoo ci mbër yi dul mobilisé. non non non yow yaakaar naa ne yaakaar naa ne ren arène safra ren. Hmm. combat yi Iba Mar yëpp sama combat ni mu fi melagum yaakaar naa benn benn écharpe melagu hmm. laa foog. Hmm. xam nga ba tax na boobu ba léegi nag ñu ngi may hmm. lay doxal combat. ñu ngi may doxal ay combat la tagee ci yow ci ñan. non man tageewul ci man. yan adversaire lañ ma ay Boy Niang 2 xam nga mais man samay la. Boy Niang 2 moom maa ngi ko doon sa bopp de. xam naa sama bopp. xam a yëngal. non ku dul moom sax maa ko <laughs> yaa ngi laaj ku ku mën wax. ku des ci wax làmb la. nangolo mu fi amul amul combat. amul garaam de. kay la fanaanoo ci Cheikh Tidiane ñaa la mujjee jóge. bëgguma sax di wax ci ay dañ lay tere sax mais nag booy laaj da ngay laaj say morom. ñi ngay laaj ñu ñoo la mën ñoo doole. mais comme comme léegi làmb ji loolu fi am. làmb ji booleetul léegi ay morom de. ay lan la ñu boole dañuy jël benn garan ak benn booy. grand contre petit nag dafa xew ci làmb. léegi nag moo moo tax mu bëgg grand contre petit. ah mais petit yaa ngi daan grand yi de. waaw mais loolu moo xew sax. barki démb gis nga Jackson ni mu def. Euh, Ahmed Dem. waaw Ahmed Dem gis nga Ada ni mu def Jokkel. waaw gis nga yeneen xale yi ngi seen bopp de. mais xale yi nag ñoo war a bëri seen biir. xale yi nañ bëri seen biir. Hmm. waaw nañ bëri seen biir. donte ni xam nga làmb yaa ngi am muy neex. Hmm. mais dafa am làmb yow boo ko boo ko tëggee noonu la demee tëj esaat. Pape Ndoye kan moo ko fas a bëreel ba. ah daa la fete yu gaaw. am na a jël revanche mu teg ko ci kan la ci boole na bu dul Siteu du bëri day. non ah, mais Pape Ndoye da ah looto. Pape ah, fa. waaw am na combat bu jàppale daal mel ni taxaw na. non combat boobu dañuy wax rek. combat ah. boobu moom taxawagul. ah kon gars yi ñooy dawari ma. combat nag Pape Ndoye moom. mu ngi bëreeg Siteu man PAM la ñaan naa yàlla fii ñaari combat ñetti mu bëriwaat moom. dëgg la PAM doy. parce que dafa nekk làmb boo xam ne mënu ma sax wax. lu tax parce que mosuma si mosuma daj coono si làmb jooju ak entraînement si lépp. ah des fois combat nga ci coono ñu ñàkk. waaw mais làmb dañ bëriwul moo tax bëriwuñu xeexuñu. mais bëri bi yow yaa ko def ban erreur nga def ba PAM doy daan la. mooy changer pied yi rek. lan moo doon nga doon changer pied. waaw parce xam nga mbër des fois di nga def dara daanu ci sax di nga si dégg lu nekk mais loolu suñu suñu mënin la xëy na ñoom it ñu ko ànd ñooñu. changer pied yooyu sa mënin la. sama mënin la. waaw ah. di mën naa bëri ñaari pied yëpp. mais nag ma ci. mun ngaa bëre ñaari pied mais am na pied boo ci gën a fort. waaw xam mooy sa fort. mooy duraat nelaw sax ku ko jël nga bëri. duraat bi ku ko jël mën naa si daal. léegi lan moo tax booy dóor teg pied gauche. Mhm. booy bëree teg pied droit di hésiter entre bëree ak dóor ban laa ciy jël. parce que dama la Pape Ndoye def Pape Ndoye tànk bi mu jël mooy sa fort. non du sama fort non du sama fort. bu la jëlee nga jóg. c'est moo tax bu jëlee damaa doon xaw ma sax lu ma xaw ma sax lu ma yëkkati ba léegi te man gën naa ne maa ko gënoon pare fop fop fop. non boo ko gënoon pare daan ko nag. waaw mais xam nga mbër des di nga gën a pare mbër mu ñëw daan la jéem a yomb nga ñibbi. bi nga daanoo. Mhm. moment bi ngay jug ci stade bi wala moment bi ngay dugg ci oto bi. Mhm. wala moment bi oto bi di daw di génn stade bi ngay ñibbi. Mhm. am defet bu rëy boo xamante ni kenn yaakaaru ko woon ci. dañ ma bàyyi su ni muy dawee. Hmm. billaahi ndax tellement fi mu toll. attanoo gàcce boobu. non non man yow naturel dama ragal gàcce. seen yee ngi wadd rek. naa leen gaañ de. man ah. naturel dama ragal gàcce si lépp. Hmm. lépp. bi nga demee waa koñ ba lu ñu wax. waa koñ bi dañu mën ñii di jooy ñii naan ne war na hmm. waaw su boobu mënuma sax fanaan sama gaale hmm. waaw foo fanaan maa ngi génn am fuma fanaan sama benn gaala gaayan ma xëy nit ñi ñëw fees gaale fees fa dell hmm. ma xam ne tamit nga ñëw toogal ñoom léegi moo gën nga bàyyi ba si kanam ngay toogal ñoom waaye jël man dama ragal defet de bu ma ko amee sax damay yërëm du ma lekk sax du ma ko mën. kon booy koñ ba xale yi riiraan gi wayal nañ la abu ñaase bul découragé. dañ doon jooy ñun bu doon loolu day neex mais da gis ku ñëw téye sa tànk di jooy xale yu ndaw laa la yu gën a ndaw. Hmm. loolu tamit am lu ma defaat am lu ma jàngalaat ba nii ma waxee yow tey lañ gën a waaj sa jóor ko jëfee. sama gaale nit ñi dañ fay ñëw li tax bëri man leen du man mais ñu ngi dox mais xëy na lu jot yomb dinaa hmm. na dafa taxawagul. Hmm. waaw tuus bi gars di tuus ba léegi mbëru làmb yi ñëpp di ko tuus. Hmm. yaa ko moom. waaw dama siy sant rek. yaa ko moom laa. waaw sama yëf la. loolu àdduna xam nañ ko. foo ko jëlee ah mais fi gars yi di jëlee yu bees rek. loolu sama yëf la mais tamit bu ma gënee bëgg ma bàyyi ko ak ñoom. ban jour nga ko njëkk tuus. yaakaar naa ni bi may répété sama répété laa ko njëkk a répété. Hmm, ci combat yi ak PAM waaw daan naa ko fecc quoi ndax man naturel man sama làmb booy sama ngay tooñ man leen sama làmb sër laay takk ay sol caag doy na quoi. Hmm. xam nga waaw man ciy sant nag te bi ma ko defee réussir na xam nga maanaam defar bi daal moom mooy. teggi teggi ah, garaaw de. non maa lay jaajëfal bu baax na di la ñaanal nga am combat ndax actuellement nii xam naa ni. Mhm. Euh, waa koñ ba ñëpp ñu ngi lay xaar. ñoo bi nga amoon. maa si yaakaar ni dinaa bëri après koor. maa ngi hmm. mu combat problème mu adversaire la am. man amul problème combat di ji. Mm. problème adversaire la am. booy taamu kay doo am adversaire am na. booy yow taamu ma mais bu ma joxee sama morom tey du ma taamu. Mm. waaw parce que ñun baax na ñu dëkk ñu ngi fi yorle. mais mbiru mbiru même mais tam mbiru mais tam mbiru gis ne ñoom nawloowul leen. Mm. maanaam mooy respect respect bi ñu leen a jox dafa des. tax loolu. waaw que da gis ku dëkk baale daan di daan pourtant il est ñu jox la adversaire yi mu la a jox da nga gis mbër bu dëkk temps daan ñaari mbër la demee mais dañ lay bëgg a la fële. loolu lan da xeex mbëru baal yi. mais dañ leen xeebantal en même temps ñoom dañoo ñàkk xam seen bopp waaw te damay métti lu benn affaire muy sama raq lees tamit. Mm-hmm. pourtant moom donte na ay supporters yàq na see ba ñaaj ko. Mm-hmm. moom njëkkeewu ko quoi. Mm-hmm. gis nga mën a njëkkeewu ko. pourquoi mënuñu ko woon ne ko kaa nga defar séesi comme comme maanaam moom ni ñu def yeneen mbëri. Hmm. foofu laay waxaat ma ne respecté wuñu mbëri booy toujours waruñu jël suñu exemple. waaw parce que Liss Ndiago tamit vraiment liñ ko liñ ko def. mais ñaata mbëri ko koy ñaawlu ci la ñaata mbëri ko fi def ñëpp koy ñaawlu. pourquoi mënuñu ko woon ne ko ni war nga defar séesi ñaata mbër lañ ko fi defar. man sax abul li ma àndul mooy mbër mii bëre. Mhm. mënul lijjanti public bi ci kaw. ay supporteurs am kenn mënu ko rek. yow yaa ngi nii keroog bi ngay bëre stade Jom Iba Mar say supporteurs wala ñenn ñu ànd ak yow dañuy jéggi nii di dugg ci biir stade mu mu ci dara dem nga ba man sax bëre arène nationale laay gën a nekk en l'aise que Iba Mar. mais a nekk parce di ko indi làmb. Mhm. tamit vraiment CNG bi am na loo xamante ne ñu ngi leen koy ñaan nañ ci bàyyi xel. waaw ñu ngi leen di ñaan boobu bu xale la xam nga nañ ko jàppale xam nga. Mhm. ñu ko teggil ko daan bi ne ko sax mu ñëw defar stade bi ñu ñëw defar maanaam siège yi bu fekkee sax ay supporteram yàqu na. ñun mhm. ragaluñ ñëw defal ko comme niñ ko defalee yeneen mbër yi. Mhm. waaw nañ ñu respecté ñun waa banlieue parce que dañoo mhm. ku fa ne banlieue la. sa diggante Weuz jàmbaar ko mos a dox. non mosuñu ko dox yaa ma ko dox bàyyiwuma fi kenn dégguma la man aw ah, ah, ma ba xam bëgg nga combat boobu comme woo ko ci. non waaw boole wu ma ko ci. xam mbër danaan la bàyyi ma fi kenn. mais bébé garga mais toog bu ñu la ko joxoon doo ko jël bëggoo bëri ak moom. ma fay lu ko jaay ma bëri parce làmb léegi amatul loolu xam nga làmb léegi lu am. Hmm. nañ la fay lu ko jaral nga bëri. parce que tey yaakaar naa loolu am si làmb léegi. Hmm. boolootuñu ay morom. mais tey am na combat boo ko tegee même bu même bu supporteeru nit ki ñëw nit ñi dañ ñëw seetaan ko. Hmm. waaw. jàmbaar bu la woon léegi fukk la avance am nga téye. bàyyi ma fi benn mbër déggoo ma xanaa. ci yaawu jaa laa koy commencé ba si kaw. yaawu bu ñu ko joxoon doo bëreeg moom ab. billaahi bu ñu ko waxee nootoo nootoo non que lamb léegi foofu la nekk ñaase doo bëreeg yaawu jaa lamb léegi foofu la nekk. Hmm. ok boo gisee ba yenn mbër yi ñëw léegi di jël mbëru quatre combats walla cinq grand combat. Hmm. nga xam ne lamb léegi foofu la toll. am na solo maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci teew bi nga teew fekk fi trophée bi muy cent mille abonnés ñu lay jaajëfal bu baax déggoo li dafa ndaw leneen la ñu ñëw lu bokk lañ lii jërëjëf yéen ñaanal jàmm rek mm-hmm. aja jiir